ñaan amul juumte numéro carte électeur bi amul juumte numéro identification nationale bi amul juumte date expiration carte d'identité amul juumte bon données personnelles yi amul juumte nan la ñu bañ a xàmmee loolu ci fichier électoral bi te ñun gëm nañu biir nañu wóor nañu ñu ngi ci fichier électoral li ko waral mooy benn suñu coordonnatrice nationale des parrainages yaay sant moom bu mu demee ci DGE. DGE DGE ngir jël fiche de parrainage bi jox nañu ko suñu mandataire docteur Tamboulé Aye. bu mu demee di fay caution bi fële ci caisse de dépôt et de consignation nangul ko mu fay ba jox ñu kay ji ci wàll yépp yooyu nee nañu duñ ko jox koo xam ni sa candidat duñ wut ci fichier électoral bi beneen am na lu ëpp ñaar fukki at ba léegi bu weesu te voté wuñu muy présidentielle muy député muy élection locale te voté wu ma Dakar Bango ci bureau numéro un ci nag bon loolu dafa doy waar trop yéen journaliste ak askan wi li am. opération la di teggi kenn par kenn ci jamono bu nekk ci opération électorale bi parrainage yi candidat yi nga xam ne kenn bëggu leen nguur yi bëggu leen yi nga xam ni ñoom ñooy woon askan bi njaaxum yi nguur gi di def yi nga xam ni ñoo àndul ak noot bi ñu noot suñu askan te tamit boole noot suñu réew ay lim bu tuuti di nguur ci Sénégal loo xam ni amul benn njëriñ doomu askanu Sénégal lu dul fitna ak jàqari ak tamit nekkal bitim réew fii ci suñu réew moo tax ñu dellusi si di wax ni ñun élection yu jub la ñu soxla élection yu jaar yoon la ñu élection yu dindiwul kenn ku war bokk ci élection li tubaab di wax élection inclusive loolu la ñu mus a wax dellu beneen moo di ñuy ñaan conseil constitutionnel candidat yi nga xam ni def nañu recours ñu xool recours yooyu ku nekk ñu delloo la si yelleef ngir ñu bokk ci élection bi te ba léegi ñu ni conseil constitutionnel dëkk yu wër benn yi ñu leen te ñu yónnee moom it dana ko xool ñu am dana doxal dëgg delloo suñu suñu yelleef ñu bokk ci élection yi maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen jëf